maam Thierno na Faty maam Thierno Ibrahima Faty mi ngi feeñ jamono ci atum 1866 ci dëkk boobu di Poroxaan di doomu maam Mor Anta Sali Mbàkke ak ku ñuy wax soxna Faty Issa Diop maam Thierno Ibrahima Faty Mbàkke ndaamal daaru bu mu feeñee jamono ci atum 1866 ci dëkk boobu di Poroxaan booba dafa tombe woon nag waajuram wa maam Mor Anta Sali Mbàkke demoon wuy ji Maba Jaxu Ba ci xeex boobu mu woote woon ci dëkk boobu di som diggante boobu nag la doomu maam Mor Mbàkke bi feeñ jamono mu tudde ko maam Thierno maam Thierno moom nag bokkoon ci ñenn ñi jàngaloon maam Mor Anta Sali Mbàkke nag lii di alxuraanul karim wala xam-xam sëriñam booba nag la duppee doomam jii di maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru kenn la ci ñi jàngal maam Mor Anta Sali Mbàkke moom doomu soxna Faati Isa Jóob ji nag am na ñu mbokkal soxna Faati Isa Jóob ñu ràññee ci ku ñuy wax soxna Aminta Mbàkke bintu soxna Faati Isa Jóob bintu maam Mor Anta Sali Mbàkke ak ku ñuy Sali Mbàkke ak ku ñuy wax sëriñ daam faati Mbàkke ibnu soxna faati Isa Jóob ibnu Mam Mor Anta Sali Mbàkke ak moom maam Ceerno Birahim Mbàkke ibnu soxna faati Isa Jóob ibnu Mam Mor Anta Sali Mbàkke ñett la bokkal waajur wu jigéen ak moom muy ñeent muy ñaar ñu jigéen ak kenn ku góor ñett ñooñu mu bokkal waajur wu jigéen di soxna faati Isa Jóob ak Mam Mor Anta Sali Mbàkke soxna Aminta Mbàkke bintu soxna faati Isa Jóob bintu Mam Mor Anta Sali Mbàkke bi matee dem kër sëriñ daam Abdourahman Lo lañ ko jébbaloon ci ndaam daaru xalimul xabir ba tax na am naa njaboot kii di sëriñ ndaam abdourahman loo ñaareelu doomu mammoor anta sali mbàkke ak kii di soxna faati isa jóob di soxna faatu bintu mbàkke soxna faati bintu mbàkke moom bi mu matee dem kër sëriñ ma ndumbe mbàkke lañ ko joxoon ba tax na am naag sëriñ ma ndumbe mbàkke njaboot ñu ràññee ci sëriñ moodu xabbaan mbàkke ñetteelu doomu soxna faati isa jóob bi ak kii di maam Mor Anta Sali Mbàkke di sëriñ daam faati Mbàkke moom sax moo magoon maam Ceerno Ibrahima faati Mbàkke ndaamal daaru Mbàkke bawal la génnee àdduna ñu denc ko Mbàkke bawal waaye moom bàyyi wu fi ak njaboot ñeenteelu doomu soxna faati Isa Jóob bi ak maam Mor Anta Sali Mbàkke di maam Ceerno Ibrahima faati Mbàkke ndaamal daaru moo sanc nag dëkk bi di daaru muxti bi matee dal alxuraanul karim waa maam Mor Anta Sali Mbàkke moo ko dalal alxuraanul ginnaaw bi nag la ko jébbal xaritam nekkoon ab sëriñub jàngalakatub sëriñ ñang sëriñ ñang moom nag la jébbaloon doomam ji di maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ngir mu jàngee fa nag lii di alxuraanul karim waaye maam ceerno yàggul nag ci loxoy sëriñ moom ab diir la fa def ñëwaat nag ci loxoy waajuram maam mor anta sali mbàkke mu jébbal ko magam ji nag xaadim rasuul sëriñ tuuba seexul xaddim nag moo eggale njàngum maam na ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ba maam na ibrahima faati nekk ku géeju ci wàllu xam-xam ginnaaw bu mu nekkee ci loxoy magam sëriñ tuuba seexul xaddim moor biraama jaxate kooku itam nag ko amoon xam-xam la ci tund woow di tund kajoor wi ngir mu dem nag mu seytu am njàngam ci wàllu grammaire arab ak li ñu tuddee wàllu taalif ak ñoom seen ginnaaw ba ko sëriñ tubaa seexul xaddim yabale ci kër sëriñ moor biraama jaxate ci sëriñ moor biraama jaxate ba maam no ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru doon fa sàkku nag lii di xam-xam laata maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru di fa jóge bindoon na ay way jagleel ko sëriñ moor biraama jaxate lijjanti grammaire arab ak naka lay def ba mën a way ay way loola itam amoon na ko nag laataa muy jóge foofu ci kër sëriñ Mor Birama Jaxate ba taxoon na nag way na sëriñ Mor Birama Jaxate ay way maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ma ngay wax ca way ya ginnaaw bu mu nuyoo jëwriñ jooju di sëriñ Mor a Jaxate ñaanal ko ma ngi koy wax na yow miy sangub jamono ji yow miy sangub maas yi maa ngi lay nuyu nuyoo boo xam ne ni kenn mënu koo wutalub yamukaay nuyoo boo xam ne nii mi ngi mel ne parfum yi gën a foor ci parfum yi yow mi réer yow mi nga xam ne ni képp ku réer bu la dëng ma lee gindeeku nga mel na aw weer ci lëndëm ba tey ci biir wayi maam Ceerno Ibrahima Faati ndaamal daaru mi ngi wax Sëriñ Mor Birama Jaxate di misaal ci boppam di ko wax ne koo xam nii daal ñëw na ci yow di ab doxandéem te xamul dara di na nga xamal ko kooku moo lay way way yii wayu yaatu daal la maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru wax jëmu jooju di Sëriñ Mor Birama Jaxate ci bi ko fa Sëriñ Tubaa Seexul Xaddim yabalee ngir doon natt xam-xamam ba xam fan la toll ñu teewlu way ya fa maam Ceerno defoon ginnaaw bu mu fa demee ci ndigalul xaadim rasul ala siixi waxti siydi ji salaamun faridun laa yubaari bi misli salaamun kama miskin wa wardawil an nadbarin ala siixi ibrahima misbaayi ahli nabaal joxla an azal ardi jami ama kama tantawi fi lbadri sullamaatu leylihi fa kam jaa ilan xarsaara fahlan mubajjalan وكم من خمين فاق فضلا بفضلي ألا أيها المقصود كل متن ويا من يسير الخمر بار لسيلي أتاك قريب من بلاد بعيدة فلا يغفل لنا عن سي الخرب لجالي وكن لي أبا برا رئيما وناسيا فأبخاك رب الأرث آوي الجسلي ولله لو كنت سالا من خدودكم إلا مماتي ما نلت بالمقصود ginnaaw bu maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ñëwee ci loxoy sëriñ Mor Birama Jaxate bu bind fa way yooyu mu wayoon jagleel ko sëriñ Mor Birama Jaxate sëriñ Mor Birama Jaxate itam tontu woon na ko di ko xamal ne giñ naa ci suñu boroom ne su ma la gisul woon wala su ma dajewul woon ak yow li ma bëgg duma ko am ñu teewlu way yu ko sëriñ Mor Birama Jaxate delloo waatoon ginnaaw bu ko maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke daaru bindee ay way ajaabahu cheikh cheikh Mor Birama Jaxate wallahi law kuntu la latumin xuduudakum ila mamatiya maa niltu bi maqsuud waaye yooyu la ko sëriñ Mor ma Jaxate delloo woon mu del siwaat nag Mbàkke Kajoor ci yi magam ji ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ginnaaw bu mu jógee foofu itam sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim itam yebaloon na ko ci kër ma kala ci sëriñ ma jaxate kala ngir mu dem fay itam nag wéyal am njàngam ginnaaw bi nag lay dooga ñibbi siwaat nag Mbàkke Kajoor sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag joxoon na ko daaray Mbàkke Kajoor jooju maam nu Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nekk fay jàngale ci wàllu xam ba tax na ci yoon yu bari na lool ñi fi jàng xam-xam maam Ibrahima Faati mbàkke ndaamal daaru ji moo leen jàngal xam-xam mu nekk na ku sës rëkk nag ci ginnaaw magam ji xaadim rasuul ba tax na lu bare bare bare bare bari maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru taxawu na ci magam ja ku baax ki Sëriñ Tuuba Seexul Xadiim ci atum 1882 seen waajur wa génn àdduna ci atum 1883 yoonu murit taxaw te magam ji xaadim rasuul moo ko taxawal waaye nag maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru day daal di fekk si magam nag ci bëgg-bëggam ndax kat laataa muy nekk mag waajuram Maamoor Anta Salim Mbàkke jébbaloon na ko magam ji di sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim kon bëgg-bëggu magam day daal di nekk nag yittey rakkam ba tax na maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru bi yoonu murid di taxaw te magam Xaadim Rasuul taxawal ko day daal nag fekk si magam ci bëgg-bëggam ndax kat léppam magam moo ko taxaw te moom kat féete na magam foo xam ne nii kat ñoo ko foo féete bariwul mu nekk nag ku jàppale magam ci yoonu murid ba tax na mag ñi njëkk a ci yoonu murid bari na ci lool sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ñoo xam ne buñ jaayantee ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru na leen fasante leen ay kóllëre ba tax na seex su bare bare bare bare bare bari ci seex si maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru am na fay turandoo li ko waral mooy kóllëre gu seexul xaddim boole woon maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ak mag ñooñu doon jaayanteeg moom ci mbàkke kajoor wala ci tuuba loolu moo waral itam ceerno yi bari lool ci ëttu mag ñi daaray xam-xam jooju ko magam joxoon itam ci mbàkke kajoor tax na itam maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru itam bari na ci ci yoon wi ñoo xam ne nitam seenub xam-xam sell na te maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru moo ko def ci ñoom ñu ràññee ci cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ibnu Serigne Touba Cheikhul Khadim cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke ibnu Serigne Touba Cheikhul Khadim cheikh Mouhamadul Lamine Baara Mbacke ibnu Serigne Touba Cheikhul Khadim ak rakkam ja Serigne Balla Coro Mbacke ibnu Mamor Anta Sali Mbacke ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci yoon wi yoonu murid nag wéy nag di taxaw bawal ngir sanc si nag daaru salaam ak tuubaa lépp itam rakkam ji maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru mi ngi ci ginnaawam sës rëkk nag ci moom nekk loxoom nday jooram ginnaaw buñ sancee dëkk bu sell bii di tuubaa sëriñ tuubaa seexul xaddim def na fi lu tollu juróom-ñaari at yu teg ay weer dem nag ci dëkk bii di mbàkke baari jolof mbàkke baari jolof googu nag sëriñ tuubaa seexul xaddim amoon na fa takk-takk ak kii di maam abdullo ba tubaab bi woolu woon ko nag ci dëkk bii di ndar géej waaye ca yoon wu njëkk wa kii ku baax ki sëriñ tuubaa seexul xaddim demul wuy ji maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru mi nekkoon loxom nday jooram la woolu ak ku ñuy wax sëriñ Demba Kebe ngir di leen wax ñoom ñaar ñu ànd nag dem ci dëkk bi di Ndar Géej ngir laaj ba xam lan la ko tubaab bi doyee tontub ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadiim nag ci loxoy maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ko tegoon ab diir lañ ci teg ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xadiim nag dem wujji tubaab bi keroog bi muy dem itam njaboot gi maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru la leen dénk ak nag lii di yoonu murita sëriñ Tubaa Seexul Xadiim def yoon wi ñaar waaye fobaat lépp nag jébbal maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru mu fab ñenn ñi jébbal sëriñ Mandumbe Mbacke fab ñenn ñi jébbal sëriñ ndaam Abdourahmane Lo fabaat yoon wépp nag jébbal maam Thierno daaru ngir mu saytu ko waxoon mag ñi nag bépp jafe-jafe bu ñu am nañ dem laaj yi Thierno bépp yitte bu ñu am itam nañ dem laaj yi no bépp addiye bu ñuy jox itam nañ ñëw jox ko no ndax ay gëtam ak i tànkamkat ci Sénégal maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru la ndigal loolu itam mag ñi jëfe woon nañ ko ndax diirub lu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim nekk nag ci dëkk boobu di gabon wala ci réew moomu di gabon maam Ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru moo nekk jëwriñu yoonu murita ba ni sëriñ tubaa seexul xaddim ñibbisee ci géej gi ci le 11 novembre 1902 ci fukki fan ci mois de août ci atum 1895 bi sëriñ tubaa seexul xaddim demee ci géej gi mag ñi wéy nag di topp ndigal li leen fi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim bàyyeel mooy topp nag ci ibrahima faati mbàkke ñooñu nag dajale woon nañ ay addiya jébbaloon ko maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru maam Thierno fa faboon na addiya yooyu nag dajale woon ko jébbaloon ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim wala yónnee woon ko ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ci réew moomu di Gabon ginnaaw bu ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim jotee addiya ya bindaatoon na lettre nag maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru di ko xamal ne addiya yi nga ma yónnee woon jot naa ci waaye nag maa ngi sàkku ci yow nga jaamu suñu boroom te farlu ci lool ak yow moom nag di maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru jigéen ñi itam wax leen ñu gën a góorgóorlu ci sëy yiñ nekkee te jaamu itam nag suñu boroom mag ñi itam di seex si nga wax leen nag ñu toog nag ci place yi ma leen dël te bàyyi nag gëweelu gu metti gi ñuy gëweelu ci biir réew mi wax leen nag ñu bako te toog nag fañ leen dël ku ci am ay yitte nag mën na koo doxi waaye bu yitte yi matee na del siwaat fañ ko dël te toog fa lettre bi seexul xaddim bindoon maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di ko ca wax loolu moo nekk nii ñu teewlu lettre bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waxad wasala al urdu wa sakkara al muslimina ilay falyawma ishtaxil bi idaamati al awraad annawaafil wa mur jamia altalaamiz bil ijtihaad fi ma baynahum wa bayna rabbihim wal yatruku gayra zalik wa mur akaabira talaamisati bil muksi inda duyuurihim bila dawaraan fa man lahu xaaja falyasir ilayha wa man lam takun lahu xaaja falyamkus fi mahal wa mur wa muri nisaa bil ijtihaadi fi salaati وبغيرها من جميع ما استطعنا من الخير ومر الصبيان بالاجتهاد في تلاوة القرآن wax na mag ñi nag li Serigne Touba Seexul Xaddim waxoon ci lettre boobu mag ñi itam jëfe woon nañ ndigal li ba ni Serigne Touba Seexul Xaddim ñibbisee ci géej gi Serigne Touba Seexul Xaddim nag wéy des Gabon ba le 20 septembre ci atum 1902 laataa muy ñibbisiwaat ci réew mi di Sénégal nag bindaatoon na lettre maam Thierno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru seexul xaddim ma ngay wax maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ca lettre ba ginnaaw bu mu ko nuyoo ma ngi koy wax sama mbokkum bopp mi ma ngi koy wax itam murit bu dëggal bi di murit saadeex bi ma ngi koy wax nag ca biir lettre ba moom sëriñ tubaa seexul xaddim di xamal maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru na wax jullit yi nag ñu gën a farlu ci jaamu suñu boroom rawatina murit yi sëriñ tubaa seexul xaddim mi ngi koy xamal ci lettre bi lii di jàkk ji na koy jiite waxtu juróom yitteel ci wàllu sëy te góor góor lu fa murit yi itam nag nañ farlu ci liggéey te nangoo liggéey wax ju yaatu daal la ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim wax ca lettre ba maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ñu teewlu ko alhamdulillahi ala kulli xaal wasalaamu ala baabil kamal wa man iqtafa asaarahu min alrijal hada wa innahu ila almuridi sadiq wal axi raiq ibrahim salaamun taam wa ikraamun aam موجبه أن تعلم بأني خير وعافية وبأني آمرك بالاجتهاد في التعلم والتعليم وفي المسجد ومرن بالاجتهاد في القراءة وفي الصلاة وفي الجلوس في بيوتهن ñaari lettre yooyu rek day wane ne ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim daana bindanteeg rakkam ji di maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ndax lépp yoon wi kat ginnaaw bu fi Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim bàyyi koo dem ci géej gi maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru la ko dénkoon ba tax na saa su ne daana wax ak maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci yoon wi sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim itam bindaatoon na yeneen lettre maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ndax soo demee ci lettre bii mu bindoon maam Moor Jaara magi mag moom ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim di ko wax ne su ma sañoon njabootug maam Moor Anta Sali Mbàkke gépp nekk benn te topp ci sa ginnaaw nga nekk seen mag ma ngi koy waxaale ci biir lettre boobu di ko wax ne nag kii di Cerno Ibrahim na fab njaboot gi nag dëkkoo leen te féetewoo ñoom fu ko soob mu dëkk faak ñoom rawatina na sell bële di Touba soo delloo itam ci lettre bi ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim bindoon doon wax maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru kii di Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke itam su matee jàng itam nañ ko dalal alxuraanul karim ci kaamilu alxuraan bii ma seex ma baabu géey jox ngir di ma wax ne Cheikh aadama Géey génn na àdduna te kaamilu alxuraan bii ma jébbalaat la ko maa ngi lay sàkku nag ci yow ci lettre bii ma la bind bu Cheikh Mamadul Basiir matee dal alxuraanul nañ ko ci dalal sëriñ ndaam abdourahmaan loo mu jàngal ko alxuraanul karim kon boobu lettre itam sëriñ tubaa seexul xaddim bindoon na ko maam ceerno ibrahima faati ak yeneen ak yeneen yeneeni lettre ngir kóolute gu doomu mamor anta sali mbàkke am ci doomu soxna faati isa jóob bi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim wéy des gabon ba le 20 septembre ci atum 1902 mu bàyyi ko le 20 septembre 1902 ngir fas yéene del ci réew mi mu cosaanoo di sénégal fukki fan ak benn ci mois de novembre ci atum 1902 la ndakaaru fukki fan ak benn yooyu ci mois de novembre ci atu 1902 nekkoon bisub talaata moo dëppoo woon ak itim talaata juróom-ñeenti fan ci weeru Shahban ci atu 1320 ci gàddaay gi def na nag ci dëkk bi di ndakaaru ay fan ginnaaw bi nag la bàyyi ndakaaru nag dem ci dëkk bi di ndar géej laataa muy bàyyikoo ndakaaru moom ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim gisee na fa ak cheikh isaa jenn doon sàkku ci cheikh isaa jenn mu dellusiwaat nag ci suuf sii di bawal ngir wax maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di ko xamal ne sëriñ tubaa seexul xaddim nee na ngeen dajee ndar géej te booy ñëw ndar nag nga indaaleel ko lenn nag ci njaboot gi ñu ràññee woon ci cheikh mamadul moustapha mbàkke di doomu xaadim rasul soxna assu mbàkke mbàkke kajoor di doomu xaadim ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ak moom moomu di maam cerno ibrahima ba ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim bàyyi ko ndakaaru nag dem ci dëkk bi di ndar géej maam cerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru itam fekk na ko fa ci kàddu yu ko cheikh isaa jenn wax di ko xamal ne sa mag ja xaadim rasul nee na nga fekk si ko ci dëkk boobu di ndar géej sëriñ tubaa seexul xadim ak maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ñi ngi mujje gise bisub samedi ba lundi 17 novembre 1902 lundi 17 boobu nag moo dëppoo woon nag bisub altine fukki fan ak juróom ci weeru chaxbaan ci atum ci gàddaay gi altine fukki fan ak juróom ci weeru chaxbaan ci atum ci gàddaay gàddaay gi la sëriñ Tuubaa seexul xaddim gisewaat ak maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci dëkk boobu di ndar géej seen gisewaat googu sax moo waral màggalug daarul moxte gi ginnaaw bu ñu gisee ci dëkk boobu di ndar géej nag sëriñ Tuubaa seexul xaddim dafa wéy desani ndar géej maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru itam ñibbisiwaat ci fii mu nekkoon di daaru marnaan ginnaaw bi nag la sëriñ Tuubaa seexul xaddim jóge ndar géej jaar Luga bari jàmm siisee sànnuusi jaar fi mu jaar ba mu egsee ci nganuk daaru salaam gi ginnaaw nganuk a na kër gi mu waxoon maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru mu sancal ko ko muy daarul marnaan daarul marnaan goog na sëriñ tubaa seexul xaddim def na fa janvier ba juin mu doog dem na gànnaar gànnaar googu nag maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru dem na fa ginnaaw bu ko fa ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim wooloo mook maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul na ndax soo demee ci jazaawu sàkkooru jéeri ji Cheikh Moussa Ka ma ngay wax ne kii di maam Cerno Ibrahima na gànnaar ginnaaw bu ko fa seexul xaddim wooloo te yoon a itam moog maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina ñoo fa dajee wala ñoo fa ànd ginnaaw gànnaar ca yéen jolof ca yéen jolof itam maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru itam daana fa dem di seeti ku baax ki Sëriñ seexul xaddim ba ci ca yéen jolof googu sax la waajuróom wa génne àdduna di soxna Faati Isa Jóob ginnaaw ca yéen jolof njaareem njaareem itam daana fa ku baax ki Sëriñ seexul xaddim kon ginnaaw gabon fépp foo xam ne nii ku baax ki Sëriñ seexul na ko fa ndax kóolute gu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim amoon ci jëmm jooju maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru nag sanc na ay dëkki dëkki dëkk bi sëriñ tubaa seexul xaddim di dem ci géej gi mbàkke baari jolof la ko bàyyeeg njaboot gi maam ceerno ibrahima faati ginnaaw bu mu jógee mbàkke baari jolof jaar na ci dëkk bu selli bii di tuubaa waaye yàggu fi ginnaaw bi nag la fi jóge dem mbàkke bawal fi tolloog mbàkke mu sancoon fa nag ab dëkk nekkoon fa waaye dëkk boobu nag dafa nekkoon yoonu junne ba tax na bari na ñoo xam ne nii sax foofu lañ génnee àdduna ñu xayma woon ko doomu ginnaaw bi nag la maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru jóge foofu nag doog a sanc guy ngoraan guy ngoraan nag moo tolloo fii ay saak saajo nekk foofu la nekk ba ni ko sëriñ tubaa seexul xaddim joxe ndigal ngir mu dem sanc kërug daaru marnaan gi waaye foofu mu sancoon nekkoon fa di guy ngoraan dafa mujj gént ginnaaw bi na fi daaru marnaan mooy fii sëtam bii nekk di sëriñ Mbàkke Daba Saar ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim sëriñ tubaa seexul xaddim moo yónni ku ñuy wax sëriñ Abdoulaye Ndour booba sëriñ Abdoulaye Ndour moom mi ngi ci réew moom di Congo ginnaaw ginnaaw bu mu bàyyi koo Congo nag a dellusiwaat ci réew mi di Sénégal la ko seexul xaddim nag wax ne nag su demee na wax maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru mu jóge foofu mu nekkoon te dem sanc nag ci wetu guy tàkko te bu demee foofa itam bu ko sancee pare na ko tudde daaru ci lettre bi sëriñ Abdoulaye Ndour indiloon maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru loolu ma ngi woon ak yeneen ak yeneen i lettre yu sëriñ Abdoulaye Ndour indaale loon maam Thierno Ibrahima Faati yenn yi sëriñ Tuubaa seexul xaddim di ci wax njaboot gi yenn yi mu ciy dénk dénkaane kon sëriñ Abdoulaye Ndour moo wax maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru na ko sëriñ Touba nee na nga sanc kërug daaru marnaan gi sëriñ Abdoulaye Ndour moomu nag bi ko sa doom ja bind na kaamil na itam lettre yu ñuy wax ne sëriñ Touba seexul xaadim moo ko bind ci bi mu demee ci géej gi sëriñ Abdoulaye Ndour mii moo ko indaale ca yoon woowa ci atum 1913 sëriñ Touba seexul xaadim yabaloon na ko nag mu dem sanc dëkk bu tudd daarul moxti ginnaaw daaru moxti itam maam Ceerno Ibrahima Faati sanc na dëkk yu baree bari ñu man cee ràññee koso ba tax na sax dëkk boobu mu sanc tudde ko koso am na ay turandoom yu ñuy wooye koso sanc na itam dëkk bu tudd Cinkóoli sanc na itam dëkk bu tudd Daaru Salaam ak yeneen ak yeneen i dëkk yum sanc yenn yi nag ay taalibeem la leen jébbaloon ngir ñu féete fa ndax bi muy sanc dëkk bii di Daaru Moxti maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru lu tollu ñeen fukki kilomètre carré la gor te ci biir ñeen fukki kilomètre carré yooyu defoon tim yu wër daarul moxti ci dëkk yooyu nag la nekkoon di liggéey di yar ak di jàngale mu nekkoon na ku ubbeeku ku daa dimbalee moom rakku seexul xaddim bi ba tax na crise bi amoon ci atum 1929 gouverneur général bi fi newoon ñëwoon na seet si ko di sàkku ci maam Thierno Ibrahima Faty ci li mu yor ci ab dund mu séddale ko réew mi ndax ca jataay boobu gouverneur général bi mi ngi doon xamal maam Thierno Ibrahima faati Mbàkke ndaamal daaru di ko wax ni crise bi metti na lool rawatina nag ci prison yiñ tëj doomu aadama yi ñi nekk ci prison yi ab dund tëna leen lool loola itam maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru tontu woon na tubaab bi loolee tubaab bi soxla woon itam joxoon na ko ko muy ab dund ba tax na sax tubaab bi mujj na am lu kawe njortam ci lim doon laaj maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru kon maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ku daa dimbalee la bi ci des itam mooy seex si toll na temps yoo xam ne ni maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru lim daa bay daana ko séddale seex si ndax seex si kat ñu ci baree baree bari bi ñu jaayanteeg Sëriñ Tubaa Seexul Xaddiim Seexul Xaddiim boole woon na leen ak maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru te itam bi sëriñ tubaa seexul xaddim demee ci géej gi ci atum moom la dénkoon taalibe loolu itam taxoon na maam Cerno itam daana fob loolu mu daa bay daa ko séddale seex si ku xamoon lu ko war la mbooloo moom mu àndaloon ngir di liggéey ngir ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ak lu jëmale yoonu murit kanam tax na itam ñu ci takkoo takkoo takku maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru def na leen ay cheikh ñu man cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Paate Silla maam Cerno Ibrahima na itam ku ñuy wax sëriñ Maxtaar Sàmba Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru moo ko defar sëriñ Moor Jëbbu Mbàkke moom itam maam Ceerno ko ku ñuy wax sëriñ ma Yaasin Jóob itam maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru moo ko defar sëriñ Maxtaar Géy itam maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru moo ko defar xam naa daal ku bëgg lim ku maam Ceerno Ibrahima Faati ndaamal daaru seexal daa juum waaye nag ku dellu ba ci marché bi ko Cheikh Moussa Ka defal da yëg ne maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ku daa defar la ak di defare defar googu ak di defare taxoon nekkoon na maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nekkoon itam jàmbaar nekk itam ko ràññeeku jàmbaar jooju mu nekkoon nag tax na itam nag lii di daaru moxti ku leen tudd tudd fetal fetal googu itam njabootug maam na Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru itam ràññeeku nañ ci lool am na naqis yu bare bare bare yu ci tàbbi am na ñu ne maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru itam ci xeexu màbba bi la feeña jamono loola itam taxoon na mu bëgg nag lii di fetal am na ñu ne lislaam itam dafa baaxoo yor fetal ndax am na yenn événement yi ci biir lislaam fetal dana tàkk am na ñu ne daarul muxti dafa metti woon boole koog itam yàqkat yi bari woon lool ba tax na itam loolu taxoon na maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru itam daa jëfandikoo lii di fetal yàqkat yooyu nag moom moo nekkoon diggante golo ak galo am na ñeneen ñu wax ne lool moom moo taxoon maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru daa ko yor waaye daal li wér te wér mooy maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru daana ko jëfandikoo bu daa ziyaare ji ko baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim loolu itam tax na ak njabootam itam sàmm loolu ngir barkeelu ci seen jëfi waajur ràññeeku googu mu amoon ci yoon wi tax na itam mag ñi mu bokkaloon ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim mag moo ci tudd rek tudde woon na doom maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ngiruk cofeel gum amoon ci moom ba tax na képp kum bokkaloon ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim man ngaa wax ne aw turandoo maam na amoon na ko fa turandoo yooyu mu amoon ci ëttub mag ñi nag tax na ay turandoom ñu leen di wooye tur yu baree baree baree bari yu wuutee ndax am na ay turandoom yu ñuy wooye ceer no am na ay turandoom yu ñuy wooye Birahim am na ay turandoom yu ñuy wooye Ibrahima am na na ay turandoom yu ñuy wooye xalil am na ay turandoom yu ñuy wooye koso am na ay turandoom yu ñuy wooye ndaamal daaru ak yeneen nag yeneen i tur yu ñuy wooye maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru loola itam taxoon na ñaari doomu seexul xaddim yi mu jàngaloon kenn ku ne itam tudde woon nga ko doom muy Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke tudde woon na ko am maam Cerno maam Cerno moom moo bokk sëriñ dan xariloo waajur wu jigéen Cheikh Mamadou Faadal Mbàkke itam tudde na ko doom ngir jàngal gum leen jàngal ak yar gum leen yar jàngal googu mu leen jàngal ak yar mbàkke daana seeti lu bare bare bari maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ci dëkk boobu di daaru muxti ba tax na sax defoon na ay way ci jëm jooju di maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ma ngay wax ne ñëw naa nag ci dëkk bi di daaru muxti seet si nag ki nga xam ne ni moom mooy joxe waa kon bi ci dëkk bi nga xam ne ni moom mooy dëkku joxe waa kon bi ngir mu jox ma nag ci ngëneel yi muy joxe kii ma seet si nag jikkoom jikkoom nag jikko la sax nag ci moom jëmm ji nag ak tabam bu amee bu ñàkkee ci jamonoy ñàkk ak jamonoy ci tabam ñu teewlu wayu cheikh mamadul faadal mbàkke defoon ci maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ginnaaw bu mu ko seetee ci dëkk boobu di daarul muxti ataytu ila al mi'ta'i fi daaril mu'ti li yuski shakwa al xabd minni bil basti xamidul xisaali saabitul jahsi ummatun xalifun nada fi xaalil qasbi wal qati kon way yooyu la cheikh mamadul faadal mbàkke defoon ci waajuram maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru itim moom itim ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim itam woyloo woon na ko magam ja Mammoor Jaara ba tax na defoon na ay baytitam ci Mammoor Jaara. wun waxeerun nada baadin fadailahu jammun xataayaahu bal axsa min addiyami tallahi lawlaahu kunna fi safa jurufin haarim walam yanfala tamsin an il alami alhamdulillahi fi wafqi samaan bihi wa kaana zuduhu fi l urbi wal ajami bayit yooyu la maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru defoon ca magam ja maam Moor Jaara ci ndigalul magam ja Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ba tey ci jëfi maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru mën nañ cee ràññee lu takkoo takku ndax bi Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim demee ci géej gi ci atum 18 1995 ba ci atu 1902 moom la dénkoon njabootu boppam gi taalibey boppam yi ci misaal yoon wi ba tey ci jëfi maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru bari na itam ci yoonu di xam-xam ñu mën cee ràññee rek ñaari doomu seexul xaddiim yi muy seex Mamadul Mustapha Mbàkke ak seex Mamadul Faadal Mbàkke ak rakkam ja sëriñ Balla Coro ba tey ci jëfi maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ñu mën cee ràññee ku sosoon rëkk la ci ku baax ki Tubaa seexul xaddiim ba nekkoon loxob ndey joora yaram ba tax na sëriñ tubaa seexul xaddim wóolu woon na ko ba yónni na ko fu bare bare bari ndax bi tubaab bi njëkkee convoqué ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ca ndar maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru la yónni woon ba tey ci jëf yi maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru bi doomi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim feeñee jamono di cheikh abdou xaadir mbàkke moom la sëriñ tubaa seexul xaddim woolu woon ngir wax ko mu dem wutal cheikh abdou xaadir mbàkke aw tur di ko wax nag bi su keroog yéexalal tax jëmm jooju ngay tuddi ka tuutul ku la gis wala koo gis jéggal nañ ko ay bàkkaaram ba ni ngay demee ak ni ngay dikkee ba tey ci diggante ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ak maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru baay tëx ba di sëriñ ibrahima mbàkke mbàkke kajoor bi mu génnee adduna moom la ko baax ki sëriñ tubaa seexul xadim waxoon mu dem toog fa ab diir lool moo waral ci dundug maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ñenn ñi di wax ne amoon na kër ci mbàkke kajoor ci atum 1926 2010 sëriñ tubaa seexul xaddim binduloo woon na sëriñ mbàkke buso ab demande d'autorisation ngir ñu amal ab jumaa ci tuubaa jumaa jooje itim maam Ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru la sëriñ tubaa seexul xaddim dénkoon liggéey ba ba tey ci diggante maam Ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim kaamilub alxuraan bi ñu tudde woon mag moom ginnaaw bu fi maam moor jaara bàyyi ko kaamil boobu ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim moo ko waroon a moom waaye biñ ko yitee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci njaareem maam Ceerno Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal la wax ne na ko yor soo demee ci marché bi ko Cheikh Moussa Ka defal ma ngay wax ne ci bayti moom fekk na fa kaamil ba te booba mi ngi ci loxoy maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim moo waxoon ne na ko maam Ceerno yor ndax benn la bisu keroog bi ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim di wax ne na jébbal kaamil bi maam na Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru tollil na ko ca mbubbum boppam ndax soo delloo ci marché boobu Cheikh Moussa Ka defal kii di maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru mi ngi wax ne mbub moomu sëriñ tubaa seexul xaddim boole woon na kaamil bi jox ko maam ceerno ibrahima faati maam ceerno nee na cheikh moussa ka su ma masaa banque su ma ko solee damay nangu ba ne doy na cheikh moussa ka sax mi ngi wax ci marché bi ne képp koo xam ne yor na mbub moomu sëriñ tubaa seexul xaddim joxoon maam ceerno da ngay fase banque ñàkk moom doo ko def ndax maam ceerno moo ko wax ne mbub moomu su masaa ñàkk bu ko solee day am kaamil boobu nag sëriñ abdu xaadir mbàkke mi waajuru sëriñ mbàkke soxna moo ko bindaloon maam balla aysa ba tey ci diggante maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ak ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim laataa yoonu murit di taxaw ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim àndoon nag maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci dëkk boobu di Ndar Géej ci ku ñuy wax sëriñ Aas Kamara sëriñ Aas Kamara nag wàlliwu la woon nitug diine la woon itim tey itim ci tarixa bii di alxaadiriya la bokkoon sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim seeti woon na ko ngir di ko laaj wirdu xaadir ba tax na sax maam Aas Kamara moomu joxoon na sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim wirdu xaadir keroog ba muy dem maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru la àndaloon Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim def na ci dëkk boobu di Ndar Géej ay fani fani fan ngir di laaj wërd wa maam As Kamara ci diirub nag lu ñu nekk ci dëkk boobu di Ndar Géej la ñuy dunde maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru moo koy yelwaani Ndar googu ba fa ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim demee te àndoon fa ak maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru da doon sàkku maam As Kamara lii di wërdu ngir maam As Kamara jox ko wërd wa dafa ndar googu yàggoon ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ba mu doon sàkku ngir mën a dem gànnaar jëli wirde wa wala màkkatal mukarrama sax dem jëli wirde wa maam ceerno ibrahima faati doon na sàkku ci seexul xaddiim ngir ñu bàyyi ko ndar googu nag ngir mën a dem màkkatal mukarrama waaye ginnaaw bi nag sëriñ aas kamara dégg na waxi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim di ko wax ne bul dem màkkatal mukarrama te fii diir bu néew lépp nga ci say loxo wala ci say loxo lay mujj te maam ceerno ibrahima faati mbàkke mii nga àndal na nga ko fonk ndax way wi seexul xaddim defoon ci ndar géej googu ginnaaw ba mu fa demee ci maam aas kamara doon ko sàkku nag lii di wirdu xaadar te maam aas kamara yeex koo jox nag lii di wirdu wa te nekkiinu ndar googu yàggoon ci moom ba taxoon mu doon ñaan ngën gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam mu jógee ndar googu ak nu mu fa mën a jógee ñu teew lu way wax wa alxuruuji min ndari kon way yooyu la seexul xaddim bindoon ci ndar géej waaye ginnaaw bi nag maam as kamara jox na ko wirdu wi di wirdu xaadir ab junni la ko seexul xaddim jox addiya maam as kamara nag joxoon na ko ay barkeelu ginnaaw bu ko maam as kamara joxe barkeelu yi nag ak wirdu wa seexul xaddim nag bindaatoon na ay bayit jagleel ko maam as kamara moomu ndax ca biir bayit ya seexul xaddim ma ngi koy wax ne jëriñ ak lor du jóge ci nit ku weex du jóge ci nit ku ñuul waaye ci suñ boroom buur bi tabaaraka wa taala rek lay bàyyi tabaraka wa taala rek ba tey lay bàyyi koo ba tey itam du jóge ci ku baax du jóge ci ku bon ba tey ma ngay wax maam as kamara njariñ ak lor ci buur bi tabaraka wa taala rek ba tey lay bàyyi koo waaye du jóge ci xarit itam du jóge ci ab soppe du bàyyi koo itam ci ab noon ñu teewlu ñetti way yi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim defoon ci ndar géej googu ginnaaw bu mu seetee maam as kamara te maam as kamara joxoon ko nag lii di wird xaadir ñu teewlu way yem ca defoon ginnaaw bu mu jotee wird wa ليس من السودان والبلان الدر والنفق من الجبار ليس من الفجار والأبرار الدر والنفق من الواب ليس من الأهداء والأحبار ba tey maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru Serigne Touba Seexul Xaddim mas na koo wax mook Serigne Ndaam Abdourahmane Lo ak Serigne Mor Absolo yéen ñett yéenay bokk menn at mu ngeen génn àdduna weer wa itam yéen koy bokk ba tax na lool loolee leen Serigne Touba Seexul Xaddim waxoon am na ginnaaw bu maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal àdduna ci bëccëgug alximis ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru shaxbaan ci àjjuma ji di ñaar fukki fanak ak juróom ci weeru shaxbaan la sëriñ Mor Absa Lo génn àdduna ca talaata ja di ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci weeru shaxbaan la sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo génn àdduna kon ñoom ñett ay bés lañ rawantee te noonu la leen ko seexul xaddim waxe woon ba tey ci liggéeyu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ñu mën cee ràññee jumaay njaareem ginnaaw bu ko baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddim génnee àdduna maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru moo fa njëkk a jiite ajjuma moom ci gàttal daal ku bëggoon a lim lu seexul xaddim jaar ak maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru daa juum ci gàttal daal ginnaaw bu yoonu murit taxawee ba ni sëriñ Tuubaa seexul xaddim génnee àdduna maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru moo nekkoon loxoom nday jooram yàlla nañu ko yàlla fayal moom Birahim doomu Mamor Anta Sali Mbàkke ba ak soxna Faati Isa Jóob di rakki ku baax ki sëriñ Tuubaa seexul xaddim mi ngi génn àdduna ci feebar bu ko ci dëkk boobu mu goroon di daaru muxti ci diiru fukki daa jaamoo suñu borom ñu tudde ko bayti ci bisub alxamis ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru shaxbaan ci atum 1362 ci gàddaay gi alxamis ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru shaxbaan ci atum 1362 ci gàddaay gi dëppoog muy bisub jeudi 26 août 1943 jeudi 26 août 1943 ci dëkk boobu ko sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim joxoon ndigal mu sanc ko ci kees googu mu bëggoon doon fa jaamoo suñu borom di bayti bayti googu sax lañ ko denc moom moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ginnaaw bu mu génnee àdduna nag doomam ja Sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke moo ko taxawu moo ko jullee ci teewaayu xaritam ba Cheikh Isaa Jenn ak mbooloo mu takku ci yoonu murita ginnaaw bu mu génnee àdduna ci alxamis yi ñu jébbal ko boroomam ca suba sa di ajjuma mu Mamadou Moustapha Mbàkke ibnu Sëriñ tubaa Seexul Xadiim mi nekkoon xalifa général des murita ñëw na fa ci dëkk boobu di daaru moxti ànd ak jàmbaari ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul ñuy egsi fekk nañu jébbal suñu boroom kii di maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ba noppi Cheikh Modou Moustapha Mbàkke saafonteeg njabootu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sëriñ Modou Awa Balla Mbàkke nag toog toogaayu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci bis boobu di ajjuma ay xalifaam nag ñii la tëdde moom maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru jeudi 26 ba mardi 9 novembre ka magoon ci njabootam di sëriñ Modou Awa Awa Balla Mbàkke moo toogoon ab toogaayam nekk itam xalifaam bu njëkk ñaareelu xalifa maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sëriñ Abdul Xuddoos Mbàkke ibnu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru moo toog xalifa mardi 9 novembre 1982 ba bisub talaata 22 avril 2003 talaata 22 avril 2003 ba nëgëri nag ñetteelu xalifa maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru mooy ki fi nekk di sëriñ Cheikh Xadi Mbàkke ibnu maam Ceerno Ibrahima Faati Faty Mbàkke ndaamal daaru ñu koy ñaanal moom sëriñ Cheikh Xadim Mbàkke suñ borom guddal aw fanam te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu maam Ceerno Ibrahima Faty Mbàkke ndaamal ak mbooleem ay rakkam ak mbooleem ñum séqal maam Ceerno Ibrahima Faty Mbàkke ndaamal daaru moo xam sët la doom la jarbaat la ak taalibeeg soppeeb maam Ceerno Ibrahima Faty Mbàkke ndaamal daaru ndax sëriñ Cheikh Xadi kat sag la ci yoonu murita rawatina nag ci dëkk bi di daarul muxti maam Ceerno Ibrahima Faty Mbàkke ndaamal daaru nag am na bis buñ koy fàttaliku wala am na bis buñ ko daa ko muy li ñu tudde ak màggal ci atum 1944 di ginnaaw bu maam Thierno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru génne àdduna ba ca déwén sa la sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke joxoon ndigal rakkam ja sëriñ Abdul Xudoos Mbàkke ngir mu bind lettre kii di Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ngir di ko laaj ndigal na ngir ñu roy ko ci bisub ñaar fukki fan ci weeru muharram di bis bi Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke di taxawu Xaadim Rasuul ci Tuubaa sëriñ Abdul Xudoos Mbàkke bindaloon na Lo Gallo ngir di ko wax nag na bind lettre Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ngir di ko roy ci bisum ñaar fukki fan ci weeru muharram di bis boobu Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke di taxawu xaadim rasul ci Touba ñoom itam ñu mën koo amal ci daaru muxti di ci taxawu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ginnaaw bu bàyyi sëriñ loo Gallo bindee lettre ba sëriñ Abdul Xuddus Mbàkke yóbbu woon na lettre ba nag ci Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke àndoon nag njabootu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci bis boobu ñuy taxawu ngir di ci fat fàttaliku borom daaru ci bés bi mu génnee àdduna di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru Shaxbaan màggal googu màggal nañ ko ci ndigalul cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ba ci atum 1954 ci 1954 nag tombeeg cheikh dul Faadal Mbàkke nekk nag ñaareelu xalifa xaadim rasuul la doon sàkku nag ci njabootuk maam Ceerno Ibrahima Faati ginnaaw bu ñëwee nag doon ko yëgal si bis boobu bu leen di xamal ne daal bu sañoon ñu bàyyi bis yooyu muy bisub génnub àdduna bi ngir maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru cheikh Mamadou Fadal Mbacke keroog nag mi ngi wax njabootug maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru bu sañoon nag ñu fukki fan ak juróom ci weeru Shahbaan di leen xamal ne bis boobu nag la seen waajur wa maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru gisee waatoon nag waajuróom wa di Serigne Touba Seexul Xaddiim ci dëkk boobu di Ndar ginnaaw bu Serigne Touba Seexul Xaddiim jógee ci géej gi mu nekkaat seenub gisee bu njëkk nañ fabaat bés boobu nag mu nekkaatub daje ci ñaari jëmm yooyu ñoom itam nag ñu di ko fàttaliku ci dëkk boobu di Daarul waxtu kon ci 1955 ba nëgë ni fukki fan ak juróom ci weeru Shaxbaan la ñuy fàttaliku maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke muy nag bis bi mu njëkk a gisee waata ku baax ki xaadim rasuul ginnaaw bu mu ko fi bàyyee dem ci géej gi maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru bañ ko dalee fàttalikoog léegi bennum at rek la màggal gi amul muy 1954 te at moomu nag la ko Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke jële ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru baraxlu yóbbu ko ci fukki fan ak juróom ci weeru Shaxbaan am Faati Mbàkke ndaamal daaru muy lu demee ne ay cant ak ay màggal waaye màggal gi ëpp doole daal ci njabootug maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru teñ koy màggalal maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru mooy fukki fan ak juróom ci weeru Saxbaan di dajeeb ñaari jëmm ya ñuy ñaan ci doomu Mamor Anta Sali Mbàkke ba doomu soxna Faati Isa Jóob ba rakk ku baax ki Sëriñ Tubaa Seexul Xadiim yal nañu ko suñ boroom fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te guddal nag fanu njabootam gim fi bàyyi ak nuñ ci mën a bokke ci maam Cerno Ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru lii di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ boroom saafara ci daraja ibrahim amin ibrahim amin